waxaat ñun ñëpp bu ñu tëjoon ci kaso bi Sénégal day continuer di dox bàyyi leen sénégalais yi ngeen di tiital bàyyi leen sénégalais yi ngeen di jaxasi fii dara xewu fi te li ma gën a metti commission en commission li nga xam ne dañ ko war a défendre sur le fond personne n'était là-bas à part que deux opposants ou trois ngeen nekkoon si vous étiez des lu tax toogu leen en commission défendre sur le fond bu jëree ñu dugal ay amendement ñu dugal ay amendement téye gis nga Sénégal bu ngeen bëggee jiite réew mi da ngeen am le sens de la responsabilité et je suis désolée de voir que li ngeen nekk du dëgg du yoon et monsieur le président l'Assemblée nationale est par essence un lieu de débat démocratique mais ce que je vois c'est que y a des qui sont là à vouloir brûler ce pays-là et ça ne passera pas je suis pour qu'on continue le débat merci chers collègues léegi nag léegi nag ni ko